Oustaz Ndiaga bis bi nga xam ne moom la Serigne Touba woote ñu santale ko borom bi subhanahu wa taala Serigne Saliou daana wax ne yàq de daganut ci genn wet yàq moom dañ koy yàlla daf koy tere te bañ ku koy def waaye donte am na fu mu ko doon daganal de ma ne ci màggalu Tuuba rek moo ko jar kon kon xam na ne màggalu Tuuba kenn waru koo dencal dara yaakaar naa ne nag bis eh, bis bi yàgg nga koo teewee ci ëtt bi eh, ay at at nga di ko fekk di ko ànd ak moom ànd ak moom ci yeneen jotaay ana yan kàddu nga ñu ci mën a yëkkati seere ko ci eh, taxawaay bi nga xam ne am na ko ci yoon bi waaye am na ko ci bis bi. jërëjëf sëñ Fallou sama xarit yàlla yàlla dolli la ndam da nga bokk ci ñi ñu ñi ñu fan ci murit gi. parce que fexe nga ba sab yëngu bopp sab sag sag dal lépp sëriñ bi la euh, te sëriñ bi mënul ñàkk tam yenn yi mu wërut defal defali boppam waaw waaw moo tax mu koy muy muy wut ku ko koy defal loolu nag moo koy tànnal boppam itam am na fay yi am na ñun du leen du leen ko def loo kon alhamdulilah bi nga bokkee ci ñooña euh, nu ngi sant yàlla di sant itam suñu xarit yi ñu fekk Oustaz Dieye euh, moom bokk na ci ñi nga xam ni bi xale yi doon ay ndaw la ànd ak ñoom Euh, seen wayjur euh, ci wàllu njàng ak xam-xam te ku mu àndal itam fexe ba nga jàng ba mokkal sa diine moo tax nga ànd ak moom moo tax yàgg na ci kër gi yàlla na yàlla fay ko yiw ànd ak Abdou Ndiaye mi nga xam ne Serigne Touba ko def nii mu ko def delloosiwaat ko muy sama xarit moo tax ma ne ko na ñëw taxaw parce que euh, Serigne itam bokk na ci moom ñi mu wax loo ndax la mu neen euh, la Seex Samba Diarra noonu jëfi wilaaya la ma woon dindi la woon wàcc ak ñawoon def fi leneen di ma ko wan ci Abdou Ndiaye mii laa ko laa ko gëmee euh, su ko defee sëriñ waa kay <laughs> ma nga noonu <laughs> man dafa am loo xam ne moom laa gëm nee naa bari xar du tax ma ngénteeku wasinu yàlla dimbali na ma bayit du ma siboor daaw fii laa toog wax naa ko ah, internet yëpp teewe nañ ko du ma sibooru du ma wax ci nit loo xam ne ni gëmuma ko du ma wax itam ci nit ngir la mu may jox parce que la ñu ma joxan daaw defe naa ni weer laa ca dund mu jeex te boo boobaak léegi bi ma calculer eh, li ma fi amaat ëpp na loolu te ñoom joxuñu ma ko kon lu may wax ci ñoom yàlla rek kay tax eh, bi bi nga jëkk a wax rek muy màggal gi loolu Serigne Saliou wax li ko nit ñi tudde màggal Touba moo tax ñu bari sax dañuy ñaalu yenn kàddu yi waaye la mu tudd sëñ Tuubaa tuddee ko muy kaay leen sant le ma yàlla loolee la sëñ Saaliw wax xam nga léeg-léeg wax dafa dafay gaañu ba boo ne màggalu Tuubaa <laughs> nit ñi dañ koy jàppee dëkku dëkku dëkku waa Mbàkke Mbàkke yi ak yu demee noonu ba boo waxee loolu ñu ne duñ ca dem waaye lii nag day lool yàllaa ngi doog am bis boo xam ne dañ ko ko organiser fi àddina nga xam ni bis boobu euh, parce que ay koor ak yéeg nat asaka ak yooyu yëpp waa ji da ciy gis boppam yàlla gis ca boppam euh, keneen mën caa gis boppam waaye lii nag yàlla kottu dong moo ciy gis boppam sëriñ tubaa daan ko def di ko defal ca làmmiñu boppam nga xam ne làmmiñu sëñ tubaa yi wax naa ko démb bu noon micro bii ma jàkkaar loolu jërëjëf fu mu fekkati micro mooy doonub seexam jërëjëf sëñ tubaa noonu la toll jërëjëf jamono jërëjëf micro bi micro bi fu mu fekkati micro yi far sax kenn dootu ko dékk kenn boobu micro ab seex lay doon ay loole sëriñ tubaa xam ni martabab làmmeñam toll na foofa mu xeeb ko ci kim koy jox moo tax sëñ tubaa delloo yàlla cëram xoolal jërëjëf yi sëñ tubaa ni muy def garab nga xam ni garab yi fi sëñ tubaa julli woon rek ay seex lañu gars yi dañ koy siyaare di fa sànni xaalis sëñ tubaa xeeb moom jëf jooju ko yàlla defal te mu am ko mu ni xeeb naa koo jox yàlla moom donc xaaral ma yëpp ñu sant la ma yàlla waaw kon yàllaa ngi doogam bis boo xam ne dañ koo wooteel yàlla te day gën a yaatu ndax addina yëpp a ngi koy def te yàlla moom julli geeg woor geeg natt asaka geeg yëpp yëpp mu xoolal ni mu koy defee am na julli goo xam ne boo ko jullee day pare da ngay pare mu taxaat la ko koor noonu lay demee natt asaka dem màkk yooyu yëpp dañ la koy taxaat waaye sant moom daa wax rek dañuy sant leen rek ma dolli amul benn amul benn benn kii bu mu ca def sëñ Touba di defal yàlla loo xam ne moo tax réew mi di neex di yokk Sénégal di neex di yokk adduna di neex di yokku te xamuñu lu koy yokk fekk na Serigne Bamba moo moo moo moo moo détecté affaire bi bi yàlla bëgg sëñ nag daa baax ba nëbb boppam li yëngu lépp moo ko yëngalte te yënguwul te bu yëngaleen mu yëngu mu ni tekk rek di di bàyyi. gaa yi gaa yi daw yéeg ci jal ab jalam naa ñoo jal-jal bi sëñ Fallou loolu war nañ cee delluwaat bu baax di ko xalaat xoolal yont yàlla Muhammad bi mu fi ñëwee bàyyi na fi problème yonent bi mu sa ñëw fekk nga fi problème bàyyi fi problème <laughs> lu garaaw laa lay bëgg wax nii mag ñu baax ñi fi ñëw kenn ku ne bi nga ñëwee fekk nga fi problème bi bàyyi fi problème bi moom muy problème wu lislaam nit ñi di reyante di jàppante jàpp nit ñi def leen i jaam di leen toroxal te yàlla loolu la gën a bañ yàlla di leen xëyu naa leen terala leen man seen jaam ñi nee naa sallallahu alayhi wa sallam mi mi mi ñu bind jaam ñi problème bi fi la ko bàyyi dem dig leen ni na ngeen yërëmante kera ba muy dem sax leen ci jullit ñi ngeen yilif ngeen yërëm leen waaye xaadimu rasul kere bi mu ne cëpp ci dëkk bi keroog la keroog la nattoo ki musiba ki balaa yëpp daw addina commencé amu neex ba fa sëñ Tuubaa musta teg tànkam ci àddina yëfi di dox te xamuñu lu koy doxal keroog la toroxalante ci àddina dakk déggatoo ci àddina bi fenn fu mbaa ay exception lay doon Sénégal moom waxuma la dara waaye keroog la fi ñi daan toroxale keroog lañ fi jógee kon sëriñ tubaa su ne kaay leen sant le ma yàlla euh, euh, sëñ Fallou ñii dañoo war a sant ñoom dëgg la war nañ leen a sant noonu waaye ñoom nag ñoo ci ëpple ñoom ñoo cëppale ndax li leen Serigne Touba defal loolu ku ko sëriñ tubaa defal jox la teraanga def la murit toj sa xol ay nit ñëw nga di leen ko jox te bu déwénee nga nga nga gën koo bari le loolu bu la sëñ Touba nee kaay sant yàlla dimbali na la nga di ko joxe te doo ko booleeg leneen lu jafe la nag joxe ko te boolewoo ca sa bopp lu jafe la. am na ñoo xam ne bu ñu bu ñu lay jox ñaari téeméer dañ caa laxasaale seen bopp waaye ñoom li ñu war a sant yàlla mooy yàlla mi leen ko jox ba noppi toj seen xol ñu di ko joxe te duñ ko boole genn mer ah boole kooku fit nag ndax ku fi ñëw fas na ne li yéene jox nga lekk jox la nga naan jox la enveloppe te triché wuñ ko ndax boobaak léegi ñoo ngi ci te man maa ngi fi bëgg a yàgg nag wax naa leen lañ ma joxoon daaw ca weeroo ba ma fi génnee ca matul fukki fan mu jeex kon lu ma fiy wax yàllaay tax yàlla dimbali leen xam naa leen bu yàgg natt naa leen ci ay jamono waaye kim leen booleel la mooy kan barab bii ki ko moom sosoon ko xam nga kooku tey bu nu ko delloo woon sax sunu njukkal seexu murit la ndax sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal mu def la lim lay def sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal. sëñ ku liggéeyal sëñ Tuubaa murid yi la war a fay. noonu sëñ Tuubaa nag bu lay fay moom moom moom moom ragalul bor dafa am pay te xam nga ni alaaji euh, Babacar Kebe Njuga waxuma la doom yu mel nii waxuma la kër yu mel nii fi Tuubaa waaye ma seral na xolu mu yi seet seral goo xam ni ak bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa xam nga li li mu doy waar sëñ Tuubaa dañuy woon lépp a ngi ci sama loxo yi maa ko moom waaw alaaj njugo di milliardaire boo xam ne ñëpp ko bëgg na am mu nangul Serigne tubaa ba far sax di takku ndomb ak baatam googu foo ko fekk muy wane ni taalibi Serigne tubaa la kon su amee doom ju mel ni soxna Momy Kébé kooku addiyee la ci ci ci ci yëf yi rek addiyee la Serigne Touba ko Serigne Touba ko fay alaaj njugo kooku nag noonu rek la mën a mel ñu toog fii nga xam ni tey lu jafe nag moo am nit boo bokkee ki nit bokk ak ñoom baay bis bu mbir xewee sa kër kër du ko ci gën a fees du du deret loolu du deret jikko la sonu moom yi dafa am nu ko yàlla def noo xamee ni xam naa ko man sonu moom yi ku muy nuyoon teel li muy jëkk a def mooy nu mu la terale te te te li mu lay terale mas nañoo dinaa la ci nettali anecdote dem nañ ci benn xew toog ci xew bi ñu doon jàng kaamil muy joxe di joxe ba ñi doon xaalis bi mu yoroon wàññeeku ñu doon jàng kaamil mu dese as tuut ma ne ko ñii doon jàng kaamil indi ñu jox leen mu xool daal ni lii daa tuuti musumaa joxe li rus naa ko te ñii mbo te ñooñu xam naa leen mbooloo mu mosaan dem boo leen boolee fukki di junni ñu toj nañ fa ñu ni ñoom toj nañ fa te li mu yor ëpp na fukk mu ni moom rus na koo joxe daal di woo ci kenn ci xale yi ni ko kaay demal ma ci banque bi kon kooku xol bi mu amee loolu nag jëfi yàlla la yàlla moo amee xol boobu yàlla moo lay jox nga di ko tooñ mu lay dolli nga di ko tooñ mu lay dolli nga di ko tooñ jikko yàlla la loolu nag bokkewul ak jaamu gi yàlla xam nga àjjana am na ci àjjana ji yàlla da koo peese ni ku def nangam ma fay la ca nangam ku def nangam ma fay waaye daam jal bu mu jël nële boo xamee ne la cay dem la cay dem ala la koy def ku ko weddi da ngay xool wa fii xaala bi Ousmane yasfa'u fi sab'iina alfan wa kullul haqqahu naaru te saxaaba yi dàquñu daqu leen woon a julli waaye lan moo ko may muy dem sëñ Tuubaa ni Ousmane dana dem sawara dajjee fa juróom-ñaar fukki junniy góor yoo xam ne sawara lekkan na leen ñu ne lu tax mu ni alalam ji mu daan jël di ko dépassé ci lislaam kon soxna moom yi li ngay def am na solo waaye man dama koy wax chaque jour ni ko daaneeloo ma man ki ma daaneel mooy sëñ Ablaye Tage ndax bi ma koy xam àndu leen kon taxoo koo mel nii mu mel taxoo ko mel ni mu mel man bi may xam sëñ Ablaye tage booba àndul ak soxna moom yi moo tax ba ñu àndee dama ne ah yàlla suñ borom a mën a boole léeg-léeg nag yàlla boole loo xam ne da naan waa lii nu nu mu ko mën a defee parce que moom yi dafa baax tabe yàlla xiir ko ci nit ñi moo leen di xëcc pour teral leen yàlla boole ko koo xam ne man ak Abdou Ndiaye mii ñoo jëkk ànd këram booba sax jamono demewut nii ak ndem si yàlla sa seex taal kere dañuy waxtaan ci sëñ Tuubaa mu bàyyi reeram ci kaw defe naa waxtu wi lay doon bàyyi bi reeram bàyyi njabootam ci kaw nun ak ñoom ñu toog booba jàpp naa ni sax xëy na bu xamee soxna moom mi xamu ko ndax loo booba du booba du ji du at yëpp bi ñuy dem mu yëkkati enveloppe boo xam ne ñun ñëpp bi ñu génnee kenn ku ne dañu waa kii est-ce que li mu li mu def nii xam na ko mu ni man sëñ Tuubaa muy dundal moom sëñ bi lay tege kon bu ko yàlla booleeg te sëñ Fallou beneen bi ci des dem naa Màkka soxna moom i mii keroog moo wàcc kaaba gi di ma wëri mën a góor a jéeyum sëñ Saliou ni mu sëñ Ablaye nee na ngeen ñëw ci kaw nee na fu ngeen mën a nekk ngeen ñëw keroog bi nu yeggee bi ñuy waxtaan am na kilifa bu jóge Sénégal bokk ci état ñoo sësaloo ñoom ñaar ay néeg waa jooju xamul sëñ ngir ngir gis nga yar dafay feeñ ba ci jëmm bu amee rek nit ñi dañ lay soppal seen bopp kooku xamul sëñ Ablaye mosu koo gis waaye saa saa buy julli ji day romb buntu néegam ñoo sësaloo cinquante 57 la woon 56. ca montre bi. bu bu génnee waa day xaar ba sëñ lay génn di julli ji mu wàcc topp ko ngir bëgg a sësaloog moom parce que nee na sellte gi mu gis ak yar bi mu gis daal moom daal kii da koo sopp te yàlla tax parce que kii xamu ko waaye xam na ni am na leer bi ma ñëwee te kooku sama xarit la bi ma ñëwee ma nuyu ko dugg ci sëñ laay ni ko maa ngi fi dama am sama xarit boo sësalool nii fa lay dugg mun ma kan la ma ne ko ki ki nga sësal mun ma cinquante nangam ma ne ko am ma non njaga loolu mu nekk ma ne ka mu ne ma kooku maa ngi doon wër fan la ma ko yàllay xamaleeg moom parce que dama koo sopp buy julli ji amul bis bu muy julli ji te ñëwuma lal lal ci wetam ndax bëgg gu ma ko bëgg kenn xamul sa morom maa leen boole keroog kon gis nga yar boobu nekk ci Sëñ Blaye teraanga jooju nekk ci Sëñ Blaye personnalité boobu nekk ci ak nag mbàkke mbàkke gi ci moom ndax boo ko ne jàkk xam ni kii sëñ Saliou am na lu mu def ci moom waxuma sant bi sant bi waaye am na jikko joo waaw kay dafa am jikko joo xam ne boo yàggee nit ki dala koy wàll te sëñ Saliou xam nga diwlin bu ngeen nekkee ñetti fan niinoo bàyyil am ndox nga laal waaye moom koo koo xool xam nga sëñ Saliou am na lu mu am na lu mu rogalaat ci moom te it moom moo ko moo ko jëf te bi mu koy jëf booba melul ni sëñ Blaye melul ni booba nun teel nanu maag sëñ mag sëñ euh, Abdou Ndiaye teel na nanu xam sëñ Blaye waaye lu mu sam jox na sëñ Tuubaa léegi nag bi ko yàlla dajaleeg soxna moom yi soxna moomi yi ku mel nii rek ko mën a yor ndax yaa ngi dégg soxna moom yi murit la borom teraanga ëppul xaalis ci réew mi nag waaye li mu ñemee ci milliard kenn mu ñemewu ko ci ñeme na ko tas joxe ko ba mu jeex kon ku mel noonu ki la mën a yor dañ ko war a peese ba xam kan la personnalité bi sëñ Ablaye yor war naa mën a yor soxna moom wax jaa ngi noonu. macha allah Sass Ndiaga maa ngi fàttaliwaat wala bu baax a baax eh, xam nga dafa seere lu am solo. Eh, ci ci li mu wax ne. yàlla dafa am jal bu mu jal boo xam ne. ay rakkaa du fa yóbbu nit. koor du fa yóbbu nit. te koor ak ak rakkaa yi. danga ko def ba noppi suñu borom delloowaat la ko. ne la taxuma ndax Serigne Touba daana wax ne. da nga julli ba àggal yàlla na la julli gi génne ci li ci wàllu àdduna génne ci wàllu bànneex génne ci wàllu bakkan yooyu bokk ci génnee julli ga jeex moo tax fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahuun nee na nga nga woor mooy la génneel ci koor gi àdduna génne ci sa bakkan génne ci sa bànneex la ma am waaye joxe ngir yàlla kooku seytaane amu ci yoon ndax alal dafa sax ci xol alal dafa sax ci xol sëñ dañ wax ne sëñ Abdoulaye daana wax ne ku la tudde doom hmm. baa mu jox la alalam hmm. xamal ne denc la ci xolam dara ndax ñoo bokk fu ñu bàyyi ko eh, mu mel ne oustaz Ndiaga li mu ci wax hmm. ci soxna moom yi wala sëñ Ablaye la ma ciy andi seere ñoom ñaar ñëpp seenum naanukaay mooy sëñ Saliou waaye yàgg nañ fa naan ba noppi dem ca duñ gise xam nga gaynde gi ñëw di naan si ci géej gi bokkut ak kéwél gi ñëw di naan si ci géej gi dañuy naan waaye duñ gisee sëñ Saliou da doon géej am na ku ko mas a wax maam Cheikh Rahma Fall dafa dajeeg Cheikh Rahma Seye xam ne ko ah doom bamba ji yaatu na de nanga nga def ci bamba ji ba ba xaw ma la ak li ma ci daj. Mhm. mu ne ko ah Fall da ngaa naane wut cig dex da ngaa naane ci géej. Mhm. tefes gaga rek nga naane. Mhm. nga mën a xam. waaye gaga sa morom naane doo ko mën a xam. waaye loolu mooy sëñ Saliou. Eh, sëñ Ablaye demee na ak sëñ Saliou na loo xam ne. njabootu sëñ Saliou gépp ko seere donc bu mas a jaar ci loxoy sëñ Saliou rek seere nga loolu. ba lii mu wax. sëñ Saliou defoon ko muy doomam defoon ko muy xaritam